si àdduna bi di ñu seetaan ñoo lay nuyu bu baax baax di leen ziar tey nag li ñu fi dajale mooy open press ki nga xamante ni de moom moo di Jackson du tuut borom lay tollool moo tax bés bi gis ni mu mel ñu bëgg si Jackson a bëri moo tax bés bi mel nii Jackson ñoo bu baax a baax di leen ziar bàyyi la nga nuyu ñu leen seetaan boor maa ngi lay fay waaw maa ngi sant yàlla bu baax di jul si yonent bi di san suma ñaari waajur di ñaanal suma yaay fu mu tëdd yàlla na góor fu mu jógee di Awa Père ba Kër Sey ak imam Hamid Ndiaye yàlla na yàlla yërëm taxaare àjjana di ñaanal suma sëriñ sëriñ Mouhamadou Moustapha Sy yàlla na fi yàgg lool te wér ak suñu capitaine maam Cheikh ak maam Babacar bépp Moussa Dina Moussa Dar. Jackson nan la waajalee bés bi. maa ngi bëgg ñëpp di bëgg sama papa ju baax Père Diaw. sonn sama trop. maa ngi koy ziar di ko bëggee bu baax. bu doon ñoom dafa am empêchement. Père Diaw waaw xam di di ziar tamit xam suma gànnaaw suma lépp. bee dem maa ngi koy bëggee bu baax a baax a di bëggee tamit Bamba concessionnaire Khadim. Marseille xaril depuis depuis sin maa ngi koy bëgg bu baax a baax xalil ñoom di daal bëgg suma grand ñom am ñom baaba bu baax a baax sûrement am ñu ngi bëgg bu baax baax bisu bisu am la tay quoi combat bi naka nga ko waajalee parce que man dama gis ne da nga xaw wañi wàññi poids naka nga waajalee combat bi wa lan wajal nak yaakaar ñu waajal war na waaw Lac Rose ñu waajale noonu noonu waaw ñoo ñaan yàlla yàlla mu dara tëwul mu ndam yomb ñun ñu ndam jafe ñu ñu sutural ma ñu ndam dimanche inshallah way combat bi lan nga ci gën liggéey waaw boko di masu sunu mag sunu lépp la masu bu baax nga ñaanal fu mu nekk mu jaamu wax affaire de la quoi la suñu la suñu papa la suñu la masu bu baax a baax a baax di ko ñaanal mu génn fu mu nekk di xam ne yéen ñu ko loolu lagi, loo gën a liggéey lan nga gën a liggéey ci combat bi waaw liggéey rapidité rek yaakaar loolu moo jeexal làmb ji waaw mën na suñu yaram te jàpp nañ nga xam nga du suuf lañ waaw lu ma waxoon sànq rek la lu ma waxoon financier laa waxaat rek trente secondes incha allah génn ma si doogu ma si waaw kon loolu tax nga wàññi poids nii ngir ngir mom sa bopp ngir mën a jëflante ak moom non loolu nga waaye poids sax chaque adversaire ni nga yaakaar moo ko mën daan ngay liggéey hmm. yaakaar nañ poids bi yor moo ko ñu comme quoi Babacar. maa lay fay Babacar. war a jàkkaarloo bu tey yàlla di dogal nga liggéey ba yegg ci magam muy lagros mais ñu gis benn Jackson boo xam ne donte am nga aal am nga arñi mais tey dafa mel ne nga yokk da nga gën a jug est ce que lii nii ni ngay doxale nii par rapport ak fi nga jëm ginnaaw suba soreetu ndax nii nga bëgg a ba ca ba est ce que boo doxale ni ba ca combat ba bu keroogee xalaatoo leneen fekk la ci maanaam ñàkk dal gi ñu gis ci yow quoi waaw rek ñun moom chaque jour ni doxee tey waa Géewaay ñëpp ma gunge mhm. waa Buun waa Cambérène Sénégal sax la ma gunge tey mhm. kon xam rek bu ñu la gungee rek xam nga nga am aal. Hmm. loolu moo aal loo mais hmm. lu ñu am am aal aal. Hmm. ñooy suñu conscient tranquille waaw dinañ bëri si normal. si kàttanu yàlla dinañ daan si normal. incha allah oui. mbër bi ngay bëreel nag yaakaar naa ne Sénégal yëpp dañ ko nangul. ak mën a bëreem xëy na ay blessure ak ay tolof tolof a tax tey waaye yaakaar naa ne war na fekk mu weesu fii nii waaye xam nga daan Euh, kii di Lac Rose tey fi mu la mën a yóbbu tey c'est de sa carrière waaw xam nañ ko quoi mhm. parce que wax dëgg yàlla champion la lu waaye wax wax dëgg wax dëgg xam na la daanaan la am na fit mën na bëre am na fit mën na bëre waaw peut-être nag lam mooy doxee noonu rek parfois nga bëgg dara yàlla ko sottil mhm. mais jàmbaar laay bëreel mhm. mais jàmbaar mooy bëre ak ah. du ma ko may dara te lu ma may may si waadoo incha allah doo ko may dara du ma ko may dara te lu ma may may si ko waaw ah. lu leer laa la wax mais ci doo ko may dara boobu dégg moom comme sa sa koñ sa gañ boobu da koo yàgg di wax. waaw saal ba da koo laaj mu ne ko arbitre moo tere mu toj nen te bu tojee nen sa kaw la jëm si. bu yoree nañ ma toj nañ mi si kawam. ah waaw bu yoree nañ. Hmm. bu yoree nañ ma toj nañ si kawam waaw. kon yaa ko njëkk a attaqué. si kàttanu yàlla li ma waxoon rek. yaa njëkk a attaqué la. incha allah maa ngi njëkk a attaqué. Ah? te lu ma gëm laa wax nii si kàttanu yàlla. yaa njëkk a tëj jóg dem si kawam. maa njëkk a dem si kawam. kon li nga gëm ne Lac moo koy daal. man moom mooy li ma wax sa xalaat ay taxaw ak yoonaan man du ma xaar. doo ko xaar waaw man lu may wax sa jour rek. daan ak daanu yàlla moo ko yor. man liggéey naa lu ma war a liggéey. Hmm. yaakaar naa li ma liggéey war na ma mën dayam. Hmm. su ma ñëwee suba lu ma war def loolu laay def. Hmm. waaw su ma at bi sulee maa si kawam. waaw. xabtalu bi wóolu sa bopp la wala am loo yaakaar na wala xeeb Jackson. waaw entraînement la rek gis nga nit ki ma ngay entraîné man waxuma man ma man damay daan chaque jour waxuma damay daan chaque jour. mais l'essentiel ma war dinaa ko def li ma war nag mooy arbitre soufflé du ma fa nekk affaire jigéen affaire de lii damay ñëw def li ma war li ma war mooy arbitre soufflé ma dox si kawam waaw dama yàlla may na ma jël loolu maa ngi ñaan dukun demi yàlla Kalau yàlla wow, combat bi mujj géej waaye la duggoon de te métti woon na waaw ah, dara waaw waaw loolu dara peut être xam nu mu demee loolu xam nga nu hmm. eh, waaw mais ñooy sant yàlla yàlla na si yàlla yóbbu jaam daal hmm. yàlla may ñu ndam hmm. xam nga suñu frère caat daara faal naan caat mooy birima birima mooy caat yàlla ko yàlla may ndam moom te ndam mu ko ko bi kale bi ah da koy leer laa lay wax ni bi day door Pape Ndoye mu nelaw waaw <laughs> ah, ah. Jackson Pape Ndoye fii lay bàyyi du si waalo waalo yow lu leer laa lay wax vraiment ah. caat caalay biré kon daal yow da nga maanaam su ma la déggee hmm. muy Pape Ndoye ak Mat hmm. samedi dimanche ngeen leen di régler seen dossier ñu bàyyi waalo waalo incha allah caat mooy am un maam deux mun dawaatee benn un an caat am deux waaw comprendre nga waaw. noonu lay demee daal man demaat incha allah dina am deux. di nga am deux samedi caat dina am un. incha allah waaw. ana am ndaale benn un an caat am deux <laughs> am nga deux ana am bu génnul làmb ji ah, deux bi bu génnul làmb caat dina am deux ah deux su génnul làmb ji ah. fu fu mu waree am deux bu dee kooku génnul làmb ji <laughs> am deux incha ci tey ma laaj la benn euh, mbir koo xam ne yaakaar naa sa combat yi passé participé na ci li nga xam ne moom mooy wàllu liggéey bi ak yow. Mhm. muy sa grand frère Lac de Guiers 2. Mhm. combat bi yàlla dogal mu fekk ko ci napp ñu koy ñaanal yàlla donc ña ña nekk foofu yàlla nañ génn ak jàmm. Mhm. tey préparation combat bi ak ni mu daan joué ci say préparation ba sa combat bi passé. ak bi passé yëpp ni mu ci joué. waaw ci combat bi nga toog gisuloo ko ci préparation. lan la def waaw du ñu manqué nag vraiment parce que tamit depuis ñu premier combat ba léegi moo ñu entraîné. Mhm. kon bu ñu amee combat bi gis ñu ko. Mhm. du ñu manqué. mais ñu tamit ay góor yàlla nañ. Mhm. ay borom jom nañ tamit. ñun bu ñu gisee dañuy liggéey bu ñu gisul dañuy liggéey. ñu ngi koy mosoon bu baax a baax a baax a baax. ku baax la tamit ku yéene ay rakam la. mais foofu jombul kenn ku ne mën na fa dugg. def ko waaw ku ne mën na fa dugg kon nag ñoo ngi koy. masu du masu famille am yëpp. waaw di ko ñaanal jàmm yàlla na génn foofu. di wax suba jori parce que gars yi di defar conférence presse da si ñëpp jàpp arène nationale da si ñëpp jàpp xam ma mm-hmm. gars yëpp xam ma teg si loxo ñëpp jënd seen xaalis dimbali ko mm-hmm. xam ne lii erreur la rek mm-hmm. waaw du bonam du daram waaw yàllaa ko natoo nit ku ne day am nag waaw yàlla ko yàlla suturaal génne ko fu nekk waaw di bëggee ñëpp waaw di bëggee waa Guèye bu baax baax di bëggee cinquante trois yëpp di bëggee tamit waa mais Babacar waaw ah, di bëggee tamit waa buun bu baax a baax a baax waa Cambérène ay di sol ya, di ah. nit hommage mais bi nga sol am laa ci gis de waaw kii suma mag la suma papa la suma la am waaw moom moo ma jëlee ma Dakar di jaay xaram waaw di jaay ay di jaay léppam ngir man kon des na yeneen yeneen hommage fayam am moo tay ma sol lii xam mhm. defal ko ko nii pour rendre ko hommage encore ah. dara man moo ma defal lépp si àdduna waaw lu ma ko desel kon yaa ko desel maa ko desel ba léegi te mënu ma ko fay si ma ko yóbboon màkk dool ko kër dool ko oto yëpp mënu ko fay mm-hmm. parce que xam nga waaw moo doon samedi mu ñëw mm-hmm. loolu dara xam nga tamit loolu moom du dara yëg-yëg la rek tolluwaayam la rek man lu ma gëm laa gëm man mën naa indi sax suba samedi Elton am naa am naa booy daje ah ngeen daje fa. bu ko neexee waaw. samedi ngeen daje arène nationale. bu ma leeree ne samedi day ñëw samedi may ñëw. bu la leeree ne Lac Rose day ñëw. waaw man sama élément ma may ni may ni Elton ak ak Thiat. ah waaw. bu leeree day ñëw man ni Thiat mi ni allah si kàttanu yàlla. mën na woote rek carrière làmb mosoo adversaire en commun yéen ñaar moom bëre na ak mbër yoo xamante ne la sut ci wàllu poids ñoo poids démb ñu gis beneen Lac bu mobile boo xamante ne bi ba joxe gauche droite gis nañ ni bu fekkee li ñu ci Lac dina ko indi ñaar di ngeen est-ce que nga pour samp jaaga taxaw ak samp jaaga ñaan rek. ñun moom ñun moom ñun moom déggoo ma de moom loolu bu ko defee mooy wóor a naat si wóor gum soow man man xeex moom moo ma gënoon kaay kaay kaay lekk waaw man moom amul ku ma ragal ku ma ragal jàmm man rek man ba Roussou te arrêté nañ Dakar naa si moom. Ah, parce que dañu gis sànq ngay dóor gaa ba dóor nijaayam daw ñëw ci yow sax. nijaayam waaw waaw parce que loolu mën nañ ko xaar sa diggante ak ndax la doon nee na bien sûr lamb la rek xam nga lamb moom da ngay indi bëri indi xeex indi lépp. waaw waaw ñun lu mu indi fekk fi. lu mu indil ñu indil ko waaw daal na yàlla suturaal waaw. maa ngi jàmm xam na ni Fass université la ci wàllu làmb ndax yaakaar naa ne ñu ngi tuddee ay champion ay ay produits Fass la. lan lañ mën a xaar ci yow nga ñëw wane sa bopp ci wàllu làmb. ah wane waat sama bopp ci Fass mais wane waat ngay wax. Mm. waaw. waaw wane waat. Bam do boo ko daan ngir dee moo koy nii. ah Lagros indi ko. Moussa Gueye indi ko. Mm. Moussa kenn moo gën a nekk cadre. waaw kon da nga wanaat sa bopp incha allah dina wanaat sama bopp ñëpp waaw na nga ñëpp indiwaat Fass yëpp. ñoom ñëpp ñu ñëw. incha allah na nga ñëpp ñëw na ñëpp ñëw. waaw mom nag moom moom jantal gannaaw la gannaaw bu baax la wax dëgg yàlla xam nga kan? mooy bëri doy la dafa wax da nga mo wax lu nice hmm. moo tax man ma ko man ma wax moo vulgaire comprendre nga mais tamit biir géew amul loolu sport la daal biir géew moom day sax waaw biir géew moom hmm. amul yaru amul yooyu noonu waaw <laughs> waaw di wo sama papa la <laughs> di woo ñëpp di woo xam nga di woo waa géewaay bu baax a baax a di di di di di ñaanal Ibou Napp ma Ibou Napp papam xam ma dafa décédé ñoo ngi ñaan moom moo moom moo kii lépp fii nii xam nga di woo waa Guédiawaye bu baax a baax di woo tamit xam nga waa waa Boune di woo waala waala yëpp képp kuy waala waala maa ngi lay ñaan xam nga combat bi nga ñëw si soutenir ma si xam nga vedam ama fayam moo ma defal lépp xam nga ma jëndal oto moo ma defal lépp kon ama fayam ak jabaram faama xam di di wo di wo tamit xam nga Père Diaw Ba di wo tamit waa yëmbal waa bun ñëpp wa na waaw na gaa ci kaw moom mu jàpp la ci suuf sànni loolu ay waxam na rek waxu mbër rek mais moom Lac Rose mënuma jàpp saat ni moom moom loolu moom yomb waxu mbër rek waaw ba ma jàmm yaa ngi xam ah waxu rek ñu rek mais dina def lu war ci kàttan yàlla waaw xam nga di woo tamit ba di woo Bamba Bamba ñu ngi a a baax jàmm ko mbaa bu baax a a baax di woo waa Seedo sama tooma bu ne Italie waa Suède ñu ngi koy woo ñu dëkkam Seedo di woo waa Fouta Thierno Ousmane waa Fouta ñoom Baba ñoom Laay Jóob xam nga sama gars yi ñoom Diagne def yëpp xam nga def euh, open press waa ma fi IT sànci bi xam nga virage. Mmh. ak corniche gétt gi. Mmh. ñëpp daal xam nga woo sama course yi Pa Omar ñoo ngi koy bëgg bu baax ba jàpp bu baax mmh. Père xam nga ñoo ngi koy jàpp baax a baax xam nga Père Dora président Pa Fall. sonn si bu baax a baax